ci màggal gi nga xam ne wax naa leen ni euh, bisu mbégte la nekk fii nag kër sëriñ Abdou Mbacke moom Serigne Cheikh Khady Mbacke yàlla na sunu borom yokk ay leeram taas na ci barkeem te yàggal fi lool Serigne Abdou Mbacke ba li nga xam ne naalal na ko borom Daarul Muxti lépp màggale ko sagom bi nu ñëwee it fekk nañ ci ay mbokki taalibe ñu ko baaxoo defee rek ñoom it ñuy amal seeni ziar eh, ci bis bu tedd bi ci kanam Serigne Abdou Mbacke waaye wax nañ wax dëgg fekk nañ ko mu xaw a wéradi lool macha allah ñaanal ko sunu boroom mu defal ko tawfiq ak wér waaye teewul nag sànni na ay kàddu yu gàtt rek dénkante koog télévision As-Samadiyya TV. asalaamaaleykum wa rahmatulah sëriñ Kosso ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu asama waa Asamaadiya di nuyu bu baax ki leen fi yebal muy sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Soyibu xam naa soj mee ma jàpp baat bi xaw a dee moo tax daanaka soo ba léegi sawaruma ci wax waaye ñu ngi sant yàlla bu baax di leen gërëm bu baax di gërëm sëriñ Abdou Samad bu baax di ñaan yàlla tam liggéey bi nga xam ni ngeen ko def si bii su borom daaru bi li ko sëriñ Bamba eh, defaloon. ba tey ñu koy waajal di ko màggal yàlla defal ko ci ma turu màggal ga àgg rek turu As-Samadiyya fa ba ñëpp xam nga As-Samadiyya di ko seetaan ñu ngi rafetlu bu baax initiative bi di ñaan yàlla bu baax ngeen jëm ci kanam bis bi nag bisu la boo xam ni dafay bisu confiance ndax Sëñ Tuubaa ba muy dem ci géej gi dénk maam Thierno njaboot gi yaakaar naa. bu ñuy fàttaliku ci bis bi dëgg-dëgg solee bis bi mooy ku ñuy dénk ku ne war ngaa xalaat booy delloo lañ la dénkoon day yokk wala day wàññeeku kon nag bu fekkee Sëriñ Tuubaa dafa dem ci gi dafa tukki bàyyi njaboot gi borom daaru bi tukkee ba ñëw borom daaru yokk lépp ba sant ko ci ba Sëriñ Fàllu joxe ndigal loolu ñu koy màggal tey kon ku ñëw ci dugg ci dëkk bi. da nga xam ne dëkk boo xam ne bu ñanee tubaa bu dëkk bu ne toll amul ci yoonu murit région Louga itam màggalu daar mooy première màggal événement bi fi gën a xamul ci région Louga mooy màggalu Daaru Moussi Daaru Moussi nekk deuxième capital màggalu Daaru mu si tam part màggal Touba mu gën a xamul ci màggal yi ñu fi def yëpp loolu lépp nag borom Touba jagleel ko borom mu si kon nag mënuñu loolu delloo si Serigne Touba njukkal li ñuy delloo Serigne Touba njukkal nag mooy lam bëggoon ci ñun. ñu jaar ci yoon woowu mooy jaamu yàlla ak nangoo liggéey ak maanu lu soo nekkul nga nga génn ci loolu rek la suñ Tuubaa bëgg ci ndax sëñ moom wàccoon nañu li nit war a am lépp pour àdduna am jàkk li nit war a am lépp pour àllaaxira am jàkk lépp suñ Tuubaa boo defal nañu ko kon nag lu des ci ñoon la des waaye dara dara desiwul ci suñu diggante ak sëriñ ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm di nuyuwaat si ñëpp di lu bëree bëri di nuyu waa ñi nga àndal ñëpp di ñaan yàlla samedi yàlla na jëm ci kanam ci barke jërëjëf. ma